waaw ah, léegi ñu ñëw ci wàllub euh, li nga xam ne moom mooy football bi. Mm. instant yi nii ñu ngi ci Cameroun la ñu doon laaj lañu doon laaj at bu yàlla sàkk ba ren jii nii man neena man loolu du ma stressé ci coupe bi. Mm. gis nañu équipe bi ni mu démarré. Euh, yaa ngi seetaan coupe d' Afrique bi ana lan nga ñu mën a dénk ci coupe d' Afrique bii. waaw sëriñ bi. waaw xam nga coupe d' Afrique dama cee waxoon lu yéeme. kaay na ma sëñ Sidi Mohamed borom alxuraan lii nga wax foo ko teg. Mm. ma lu mu xam la lu leer naññ la. muy lan sëriñ bi. équipe nationale dafa am ñaari kilifa yoo xam ne ñoo ko sacrifié. dañ ko sacrifié. billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa ay loxo moo ci nekk. ay loxo yu bon ñoo ci nekk. parce que ni may wax ak yow nii am na ñoo xam ne bëgguñ coupe bu ñëw Sénégal. kilifa yooyu ay lan kilifa yi ñu ngi ci kër kenn ki dee na. wala ay politiciens ki dee na sëriñ lañ sëriñ sëriñ. ay sëriñ ay sëriñ yu mag lañ Sénégal am ay taalibe yoo xam ne loolu neex loolu neex la ñuy def ci réew mi. kenn ki wàññeeku na kenn ki wàññeeku na benn. Hmm. kenn maanaam buñ Sénégal demee ba nekk final rek da ngay dégg kenn ki génn wax te wax ji mi wax du ko teg fenn benn bu njëkk mooy gis nga euh, am na am Sénégal bu demoon tey ji ba série ba war a yegg final. Mm-hmm. ba war a dóor bal bi. Mm-hmm. sax mu dugg nga xam ne benn bii moo ci des. comme El Hadj Diouf li daaloon. waaw da gis ne de lay dal. pertement ñun ñun après dañuy échec. dafa am fu ñu def. dafa am lu ñu def loo xam ne tey jii lu bon a bon la. mais loolu noonu ñu def ñoom. match bii ñu ngi war a jëm suba. Hmm. Sénégal mën naa gagné mais dina métti lool. mais mën naa gagné victoire bu ñu am moom incha allahu rabbi hmm. ci côté Sénégal lay nekkee mais dina métti lool sax. dina métti dina métti lool sax waaw léegi ñaari sëriñ yooyu li ñu def pour mu dañ lan lañ war a def. waaw ñi nga xam ne ñooy ŋànk affaire ñoo ŋànk loolu muy son excellence Matar Ba nga xam ne mu ngi liggéey liggéey bu am solo. Hmm. daa wax ne ministre Macky Sall yëpp bu ñu meloon ni Matar Ba. Hmm. kon Macky Sall dina dina paase fii yëpp. Matar Ba moom coupe rek moo ko moo ko kii moo ko. coupe rek mais moom moo xañ jàmm. non Matar Ba boo xoolee ci wàllu euh, Ligue ak sport bi. non sport moom nice mais coupe bi rek moo ko të dafa tëlee ci coupe bi boobu nag incha allahu rabbi li may wax nii. Hmm. boo demee Farba laaj leen boo demee Jurbel sama turang fa. Jurbel yaa ngi dégg boo demee Kaolack yaa ngi dégg sama turang fa ci wàllu ci wàllu football dañuy dem ba sax dañ ciy làkkatu ci lu bëri. waaye waaye buñ jëflante ak ñun incha allahu rabbi dinañ dindi loolu noonu ñu def sa équipe nationale te coupe bi dina ñëw incha allah mën naa ko dindi ko dindi parce que ñun sëñ bi dañoo ismu azam bu bu mag. dañoo xam turu yàlla ba pare yor yor ismulaay azam. waaye munoo toog ci ruq rek nga rocc ko. woo Matar ba rocc affaire bi waaye ma ne lépp dama koy def. waaye lépp dafa am dafa dafa am fu ñu ko war a jaar lépp loo gis rek. am lu mu laaj yoon la dafa am lu mu laaj. lu dara ñun utuñ ci dara utuñ ci xaalis. soxlawuñ ci dara. Hmm. parce que ñun yàlla mu ñuy suturaal. boo ko defee moom def nga ko pour man def nga ko pour keneen. def nga ko pour man ñun ñun ñun ñun buñ toogee di seetaan waxtu wu nekk. Hmm. mat Sénégal bi rek moo ci mujj. Hmm. Euh, layti mi ma toogal mu ngi toog hmm. bi ñu toogee daa ma ne ko layti mu naa ma ne ko demal nga génnee sarax bi nii buñ billaahi lazi mu ngi laaj ko yaa ngi def say sarax yaa ngi dégg génneel sarax bi boo ko defee Sénégal dina dugg defuñ hmm. du nekk li ngay taxaw di koy ndamoo la hmm, di wala nga koy wane woo ci ay nangam way nangam déedéet parce que ñun Sénégal moo ñu ñor ñun Sénégal lañ bëgg li bàyyi ñu soxoon wa Sénégal yo awi taxta zillin Muhammadin yaa ngi dégg Sénégal mu ngi ci suufaroon ker yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala lan moo ko gën a rey Sëñ Bamba fan la nekk bu mu jàkkaarloog yonent bi lu mu ko wax. antal karimu anal xadimu léegi man. Mhm. naa wax kilifa yi ñu ngi ñuy seetaan. parce que ren moom bëgg nañ ko lool. ak suñu équipe bii nga xam dafa commencé rek soox. incha allah man amul aw ma ci yaakaar ñu bëri amuñu ci yaakaar fi ne nii. déedéet xam nga tey jii nii. Hmm. xam nga tey jii lépp loo gis rek tey jii. équipe bi am ci yaakaar bu ci kenn am nja bu bu leen njaacaaral ci équipe bi. waaw parce que mu mu commencé Sénégal dafa nekk équipe boo xam ne bés bu commencé di dóor ay ay victoire. di am ay victoire yi ngand hmm. dañuy naagu naagu ñëw cat dugg ña cat day dugg naagu te li may wax ci loolu sax ci cat hmm. ngir yàlla hmm. waxkat yi nañ noppi seetkat yu jigéen yeeg ñu bëri wax ñooñu nga xam ne ay sobe kese lañ buñ buñ buñ buñ buñ nekkee ci mbërëg xam nga luy mbërëg xam naa bu baax buñ nekkee ci mbërëg <laughs> sax duñ duñ mën a duñ xam xamuñ sax nu ñuy sangoo set nañ noppi suñu équipe bi yaa ngi dégg sëriñ ñi nga xam ne xamuñ dara wax ju bëri rek lañ fi nekkee ak nekk di fi daf nangam ak nak bi di guuxi leex ak daan dañuy sol ay dara di nappaateeg nañ bàyyi fi caaxaan yi man de ku ñemee nañ nañ def euh, euh, confrontation. kon yow da nga bëgg a wax ne yow yaa leen yaa leen yaa leen gën a mën li ñuy wax. billaahi lazi la dañuy wax rek ñoom mënuñ sax gars yi dañuy wax rek defuñ dara sax gis nga gaa yi bu ñu toogee plateau directement. Hmm. ñu tara ñu ñu ñu ñu ram la. moom gañ moom li gis nga seet bi ñaan seet ram la. Hmm. maanaam ñu ram la man ma waxal leen ñoom seen li nekk seen biir ñoom ñoom seen bopp ñoom seen bopp bu ñu toogee ma wax leen li nekk seen biir ñoom ñoom sëriñ ñi bëri wax daal moom pour mbir mi dañuy nax Sénégal nañ bàyyi Sénégalais yi ñuy nax pour mbir mi dañ noppi ci équipe nationale parce que équipe nationale bii nii dafa war am fu mu yegg kon nañ ci noppi bu baax a baax laajuñ leen soxlawuñ seen seen wax ju bëri jooju noonu kon daal kilifa yi yow buñ ñëwee seet la li ñu soxla incha allah danañ ko ci kattanu yàlla dinañ ko am incha allahu rabbi mm-hmm. li ci war yëpp danañ leen ko wax waa ñaari sëriñ yooyu def lan moo tax ñu def loolu. waa xam nga ndax ndax xam nga sëriñ bi mbooloo. Hmm. dafa am ñoo xam ne mbooloo rek lañ bëgg. dëgg maanaam tey jii nii ma la ah diw nga ne ma waaw ma ne la lii de boo ko sacrifié. Hmm. su cër yi wala nangam wala sa doom di nga am nangam ak nangam. Hmm. mu jaral la nga dem sa réew. yaa ngi dégg nga nga dem ba fi nga dem ca Inde. nga dem ba fi nga dem def fa la nga fa def ndax ne da ngaa sacrifié équipe bi ndax lan. ndax pour lan ndax nga mën a am mbooloo ndax ngir lan ndax nga mën a am nangam ak nangam ak nangam hmm. mbir yi du leere fii mu ngi leer ci kanamu yàlla hmm. waaye nag ñun ñi nga xam ne yàlla wan nañu ko hmm. ñu xam ko mu leer naññi ñun ñoo ko war a régler te bu buñ ko buñ du jug nañ pour régler ko insha allahu rabbi mais gisaguñ ku ñu si wax loo xam ne ñu ngi doon wax naan sax dañu ay dañu dafa am ñu ñu tooñ waaw xam nga xam-xam moo tax mënuñu àgg fenn jërëjëf jërëjëf ci jërëjëf ci question bi maanaam du loolu de xam nga lan la tamit nañ bàyyi di ci dugal mbiru sëriñ si. waaw gis nga sëriñ Touba xamul xamul xamul fubal. gis nga Seydi Hadji Malick si xamul fubal. billaahi wal kitaabi képp kuy wax sëriñ Touba. Mm. di ci di ko boole ak fo. ëllëg yomal xiyaam di nga layoo ak moom te doo ko gis sax damay wax ne damay wax ne yow danga ngaa nekk ci àdduna nga ne Serigne Touba nga yaakaar mm. nga ne Alaaji Malick Si nga yaakaar nga ne Baye Niass nga yaakaar nga ne Limaamu Laay nga yaakaar mm. munoo leen gis ci gént Serigne bi nga ne yomal xiyaam di nga gisante ñoom yaa ngi nax sa bopp <laughs> waaw koo dul gis si gént moom. wallaahi wa taala yaa ngi nax sa bopp. <laughs>